Cheikh Mouhamadul Muntaqa moo ñu waxoon ni nañu ko yëgal mbokk jullit yépp yi ci réew mi ak yi nekk bitim réew mu wax ma keroog ca àllarba jële ñu génn ni naa jottali mbokk jullit yépp xamal leen naal bi nga xam ni moom lañ fi naaloon muy jumaay sëriñ Touba ji toll nañu ci bëgg ko ubbi maanaam toll nañu ci sëriñ bi ñëw fi ñu bëgg ko julle nga xam ni dañ koy ubbi mu nekk jaamukaayu yàlla boo xam ne bii li ci yàlla digle lépp dinañ ko fi def mooy ñu saxal fi waxtu wi juróom ak fànn jaamu yàlla yi nga xam ni yépp dafa méngoo ak barab bi ak néeg bu mel nii ni ni ma woon naa ko yëgal ñépp te keroog ca daja ba nga xam ni moom la woote woon ca Touba muy woote boo xam ni dañu ci doon ñaax ñun mbokk taalibe yi ak jullit yi ci loo xam ni dañ ko war a def mu jëm ci dëkk bu tedd boobu di Touba ak warma ji nga xamni dekk ba war na ko am ak taxaway bi nga xamni ni yi war nañ ko taxaw ci dekk ba jox ko warma ji tollu ni jimu mu yellool mu ni woon nañ ko jottalil mbokk julit yépp mu wax ci yit ni bu sañon ñu ubbi barab bi jumaaji ji mu ñëw fii ak mbokk jullit yépp ak ñi mu bokkal sëriñ Touba ñu ubbi ko bu ko defee mbokk taalibe yi man di ko jëfandikoo ñu jàppoon ñu fukki fan ak juróom-ñett fukki fan ak ñeent ak ñaar fukki fan ci weeru wala nga xam ni mooy weeru septembre mu jàppoon ci nii mën nañ ko ci ubbi dañu ci doon dàkk ñaari fan wala ñetti fan yi nga xam ni ku baax ki di sëriñ bi nekkoon na ko fii ci ndakaaru muy guddi yoo xam ni ay guddi yu tiis la woon ak guddi yu mitti sëñ Muntaxa day loo xam ni ñun taalibe sëriñ Tuubaa yi war nañoo koo fàttaliku ko day ñaari guddi yo xamni serigne bi lu ne mun ñu waye ñaari guddi yooyu ñu ngi koy fàttaliku mu ci doon bak nag ñaari guddi yooyu nga xamni suñu mbokk talibé dakar yi sax dañ koy magal màggal dañuy magal ñaari guddi dakar yi moy wa daayira dakar bi buñ ko magalé ba ci ëlëk sa nga xamni ci la serigne bi joggé fi dem ci géej gi suñu mbokk talibé yi diko magal fele ci ca muy julig sering sëriñ bi ni kon nañ ko ci dak nañ ko ci dak pour man ci ubi jumaa ji pour xamal aduna bi ni leen nakar wu ñu amon ci ñetti gudi yoy biñ fi indé sering bi sans borom li mu defal sëriñ bi ci teranga ku ci tek sa bet mu la gudi yam nakari bo ko gis li ñu ko fi liggéeyal sa xol warna sedd mo taxoon mu ci ko ci doon dak ngir ñu man ko ci ubi yàlla def ñu dàkkoon ko daaw ba jàppoon ni dañ ko ciy ubbi waaye sëriñ bi ci ginnaaw gi mu woolu ma ni ma dama bañ ñu ndax sëriñ bi kenn du ko jox lu nuppiwul bi mu ci waxataaneeg mbokkam mu baax mi di sëñ Amadou Maxtaar ci la ma woolu ni ma nañ ko def ajjuma ji jëkk wala ñu def ko ajjuma ji mujj ginnaaw gi mu xool ko ni mën nañ ko def ci àjjuma ji nga xam ni mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre maanaam bu ñu màggalee daaru xudóos bu fekkee ni weer wi kaamil na bu fekkee ni dafa kaamir le 19 lay doon bu kaamirul di le 18 te mënuñoo nekk daaru xudóos di màggal goo xam ne dafa bokk ci calendrier yoon wi ba ñu tuddee ko màggal gu ndaw gi kon mënuñu faa jóge fanaan fa wëlbatiku ñuy ubbi jumaay masalikul jinaan ndax nee na jumaa ji ubbi tegi dama bëgg feek téeméeri at yi ci kanam képp ko ko yàlla fakkeloo nga koy fàttaliku ni téeméeri at ca ginnaaw de am na xew-xew bu réy boo xam ni diggante bi xew-xew melatul ni moom